wala yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci euh, page Facebook bi wala yéen ñi nekk ci chaîne YouTube bi mbokk yi xam ngeen ne samedi bu jot dañuy amal ab euh, taxaw seetlu ci bawal info point net maanaam actualité bi nga xam ne moo gën fës bi ñu gën a waxtaanee tey nag ci samedi ji ñaar fukki fanak benn ci weeru novembre atum 2020 information bi nga xamante ni moo gën fës bokk na ci li nga xamante ni moo xew tribunal démb ci tribunalum ndakaaru ndax mbir mu doy waar mbir mu garaaw a garaaw moo fa xew démb euh, li ñu fa doon euh, atte mu nekk loo xamante ni ñi nekkoon ci salle d'audience bi sax euh, mbir mi jaaxaloon na leen ñenn ñi sax rusoon nañu lool ndax li xew mooy dafa am benn benn imam bu tudd imam Boubacar Diallo imam Boubacar Diallo nag démb bi ñu ko attee dafa nettali lu doy waar nee na moom da doon génn ak benn xale bu jigéen bu tudd Marème bi ñuy génn ñoom ñaar génn nañ lu toll si juróom ci ay at nee na nag moom imam bi lu ne defal na ko xale bu jigéen bi waaye li tax mbir mi teere ji sa tribunal imam bi neena xale bu jigéen bi da ko doon filmer jamono ji nga xam ne ñoom ñaar ñoo ngi ànd Euh, di siim seen mari ŋàññi nekk si ay ñol-ñol ci la ko xale bu jigéen bi doon filmer ndax moom imaam bi nee na dafay toll foo xam ne dafay euh, tàggoo ak sagom jamono jooju si la xale bu jigéen bi di jël ay film ak di euh, di ko photo ba tamit imaam bi nee xale bu jigéen bi dafa jël photo yooyu vidéo yi envoyé ko soxnaam ba pare tamit envoyé ko ay rakkam mu nekk loo xamante ni imaam bi nettali na ko di ko démb tribunal ba daal di wax ne xale bu jigéen bi sax da ko yàgg di ko chantage bi tamit nee na xale bu jigéen bi daf ko daal di toroxal mu muñ ba muñu jeex loolee moo tax mu daal di jël mbir mi yóbbu ko fa na doone benn loolu la imaam bi wax ni ki démb waaye nag ci euh, ndortali xale bu jigéen mi doon na ko jéem a weddi waaye mujj gi daat nay wax ne moog imaam bi yàgg nañu lu ne def nañu ko xale bu jigéen bi sax nee na am na bis boo xamante ni ab àjjuma la imaam bi war a dem julli ji juma ndax imaam bi moom mooy jiite juma àjjuma euh, ba pare tamit dafay def ay euh, xutba xale bu jigéen bi nee na imaam bi dana ko daal man bala may dem sa jumaa ja il faut que nga daal di may bégal maanaam ñu ànd sim seen mën a ŋàññi xale bu jigéen bi loolee wax na ko démb ca tribunal ba mbir mi mujj doy genn xeetu doy waar goo xam ne foo ko waaye natt euh, daat na koy passé ñi nga xam ne sax ñooy àttekat yi mujj nañoo yëkkati nag ay kàddu yoo xamante ni nag euh, mën nañu ko tuddee sax kàddu yedd ki nga xam ne mooy euh, imam bi ndax dafa am loo xam ne ci Sénégal ak sunu société bi xaaruñu ko ci ab imam bi si njëkk rek mooy ab imaam nan la mën a àndee ak xale bu jigéen ñu génn ñoom ñaar lu toll si juróom-ñett at juróom-ñetti at jàpp naa ne gudd na yàgg na lool rawatina imaam boo xamante ni tey moom dafay waare ci diine ndax xam na ne moom imaam bi bu dee xam-xam bi muy woote ma ngi ci moom bu xale bu jigéen bi ay fan walay weer rek war naa xam xale bu jigéen bi euh, ban xeetu nit la su dee ku mu a àndal la mu xam ko su dee ku mu àndal mu xam ko waaye nag ànd xale bu jigéen juróom-ñetti at loolee moom bu doon xale la sax mën na wax ne dafay font kon mbokk loolu mooy li nga xamante moo gën a doy waar tey ci samedi ji ñaar fukk fan ak benn ci weeru novembre bëri ay euh, taskatu xabaar yoo xamante ni daanañu koy xëyee muy imam boobu nga xamante ni mooy imam Boubacar Diallo mi ñu àtte démb ca tribunal ñu wax ne xale bu jigéen bi da ko doon filmer ba pare nag jël vidéo yi doon ko chantage toroxal ko wan ko nag soxnaam mu nekk loo xam ne doy na waar doy na waar doy na waar lool kon mbokk yi ñu leen di sant di leen di gërëm yéen ngi ci site internet bi di bawal info point net xam ngeen ne samedi bu jot dañuy am ab taxaw seetlu maanaam jàngat euh, xibaar bi nga xam ne moo gën a fës ci samedi ji. bawal info net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey bawal